waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu leen leen ziar bu baax di am mbégte lool ci jotaay bi yéen waa Mourchid TV di sant bu baax seen taxawaay ci liggéeyu Seexul Xadim bi ak liggéeyu ñu baax yi kon laaj bi mooy tolluwaay màggal màggal gi rek tolluwaayam nag ñëpp gis nañ ko ndax depuis euh, premier safar ba léegi ñu ci wàccaay ba tey yi nga xamante ne mooy nekk seize safar li euh, ñi nag ñu ngi commencé ñëw bu baax a baax a baax di jóge fu ne ci àdduna bi di ñëw ci dëkk bi fu ne la ñu di jugee di ñëw ngir lan sëñ bi tolluwaay bi nag nekk na tolluwaay bu mag a mag ndax chaque année gis nañ ne day yaatu te ren nag gis nañ ne tolluwaay bi nit ñi dañoo teel a ñëw teel a ñëw teel a ñëw bi a ñëw nag waral na nag maanaam gën yi gën a bari gën gën a yaatu loolu nag moo tax ki nga xamante ne mooy ñëw nan lay ñëwee ki nga xamante ne mooy dalal gan gi nan lay dalalee gan gi kon kii ñëw war naa ànd ak comportement boo xamante ni comportement kuy jaamu ji yàlla la comportement ba kuy seeti yi yàlla la kon ñëwuñu pour pour ko réew ñëwuñu pour folklore dañoo ñëw ngir jaamu si yàlla ndax kii woote li mu woote sant yàlla te yàlla dafa bokk ci ponk yi nga xamante ne ponk lislaam la yi nga xamante ne mooy taxawal lislaam sant jaa bokk yàlla suñu borom moo ne moom boo ma santee ma dolli la léegi nag ki nga xamante ne dafa jugee dëkk dëkk li mu war def ci xolom def ko ci xelam def ko ci ay melokaanam mooy day jaamu ji yàlla ñëwul rek pour lekk naan tëdd nelaw naam kii woote loolu la woote daa woote pour ñu sant la ko bernde ko mais nag sant di ci njëkk nag sant ruug indi sa ruug defar sa ruug defar sa ruug mooy lan indi eh, jaamu yàlla muy arkaanu islam yi nga xamante ne moom la yàlla santaane bul ko bàyyi muy salaat julli julli yi nga xamante ne sax na ko sax waxtu juróom yi soo ñëwee di màggal si bul ne ah damay xéewlu ba fàtte julli bul ne damay sañse ba fàtte waxtu julli yi kon waxtu julli nga xamante ne tey jii yàlla suñu borom santaane na ko boo ñëwee barabu sel bi Touba war nga xam boroom mi nga xamante ne mooy Cheikh Khadim lim daan wootee mooy la yónni sallallahu alayhi wasallam woote mooy la yàlla santaane kon bul ñëw rek indi sa melukaan bopp wala nga indi sa sa sa benn comportement bopp kon ñëwal ñëwee ñu lislaam ñëwal ñëwee ñu jullit kon boo ñëw lépp loo xamante ni taq-taq la ci yow ci sa xol wala euh, ñaaw ñaaw la ci sa jëmm wala lépp loo xamante day indi comportement boo xamante ni comportement beneen la bokkut ak lislaam na nga ko bàyyi foofu te ñëw ndax boo ñëw ko da nga damay sangu ji ci ay bàkkaar damay sangu ji ci lépp loo xam ne day taqal doomu aadama kon nag boo ñëw lépp loo xamante ni ñaaw ñaaw la ñaaw teef la na nga ko fa bàyyi ba boo delluwaatee sax loolu doo bu ko defati ndax màggal si woo rek comme màggal si màggal damay màggal déedéet damay màggal si pour lan defar sama jikko defar sama melokaan defar sama comportement ndax nit ñi am na koo xamante ni ku ne day ñëw ñooy nam comme la yoon sallallahu alayhi indi waxoon ne innamal a'maalu binniyaati jëf yëpp mi ngi tegu ci yéene ki nga xam dafay yéene ngir jaamu yàlla ngir sant la sëñ bi yàlla kooku loolu la cay waaye ki nga xamante ni dafay yéene ngir lan damay commerce ji loolu la cay am ki nga xam ne dafay yéene ngir lan dafay ras déem kooku loolu la cay am ku nag ku nekk nag barab bi nga xamante ne da ngay yaakaar ne boo fi jaamoo yàlla yàlla day gën a yokk say tiyaaba yokk say xewal waaye boo fi may yàlla tamit yàlla da koy ful kon bu fekkee da ngaa ñëw nag pour mooy si nag loolu nga fay loolu nga yóbbaale kon kuy ñëw na yëg ne Seexul Xadiim mu ngi woote wootiwut folklore woo wootiwut am mumbaay dafa woote jaamu yàlla li mu woote nag ñëpp ci bokk képp kuy ab jullit ngi ci biir du question murid dong sant yàlla murid dong moomu ko sant yàlla képp ku war a asodaan laa ilaaha illallaah asodaan Muhammadu yaa ngi ci biir kon yow mii ñëw fasal sa xol yéenal sa xol damay dem pour sàkku si ngërëm sàkku si tiyaaba sàkku si ay xéewal ngir bu ma demee ba ñibbiwaat man koo jariñoo kon loolu mooy kii ñëw ki nga xamante ne mooy dalal gan gi yow fexeel ba kii ñëw nag nga nga nga convaincre ko noo koy convaincre ñëw di ko wan ne ko maa la ëppale lii maa la ëppale yére bu rafet maa la dàqa nangam maa de bu ko wan la wan ko maa la gën a doon ab taalibe doon wan ko ne ko maa la gën a fonk sama diine fexeel ba yow moom mi ñëw waxtu julli bi nga xamante ne fekk si na yow bul bul bul bul bul tëb benn waxtu te julli boo ko ndax bu fekkee dafa dafa ñëw ci yow jële gën a si benn bendeel ko ci xol am na solo mais bendeel ko ci ru mooy lu njëkk bendeel ko ci ruu mooy lan ba moom bu ñëwee nga jàngal ko kan mooy Seexul Xadim nga won ko Seexul Xadim ci ay jëf ak ay melokaan noo ko jàngalee wan ko pratique l'islam jëfe l'islam bi boo ko wanee loolu ba pare ba xel mi ñëw nga indi ko nag xol bi lekk yeeg naan nga ko ubbi kër gi lekk yeeg naan yëpp ñëw mais nag bul fàtte nag jaamu yàlla gi su heure waxtu julli jotee ñu bàyyi lépp dañ julli si su heure alxuraan jàng alxuraan jotee ñu bàyyi lépp dem jàng alxuraan mais buñ topp mu mbaay gee xéewal yi ba nga xamante ne tey lépp lu jëm ci loolu koy fàtte kon yaa ngi doon waajal màggal gi depuis euh, trois mois yow mi nekk ci dëkk bi noo ko doon waajalee defar sa kër bul fa fa jara peinture nga peinture fu jara ma defar maçon nga defar maçon fu jara sëkk nga sëkk lépp waajal waaye nag kii ñëw nag na nga ko waajal noo koy waajalee buy dem na am lu mu yóbbaale buy dem na yëg ne moom mi ngi dem mais am na loo def ci moom ci ay jukkoo ay melokaan ba ëllëg si bi ñuy xet mi meet Touba ba ëllëg si bi ñuy xet mi maat ñëwaat Touba àndat ak yow màggal mais soo ko wanee loo xamante ni moom fa mu jugee fa la ëppee yaa ngi xeebal Sëñ Touba yoonam bi yaa ngi xeebal Sëñ Touba li nga xamante ne mooy li mu woote kon wan ko ne ko ak taalibe laa lay wan mais taalibe bi ñu lay wan nag naa ci sàmmonteeg sama diine sàmmonteeg sama ak sama diggante ak nit ñi bu ma kenn wan ko na ko nag yaatal naa la ci xol yaatal naa la ci lépp kon daal loolu mooy ki màggal si loolu mooy ki nga xamante ne mooy dalal gan bi waaw ñu ngi siyaar ñëpp di màggal ñépp waaw di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Saliou waaw màggal gi de moom fi mu toll nii mën nañu wax ne taw féexe ne bu baax a baax a baax waaw ndax euh, Serigne Touba bi nga xam ne moom moo ñu jagleel lii xeexal diine moo ko taxoon a jóg moo tax mu ne kaa leen sant la yàlla. kon nag ñun bu ñu yàlla boolee si kaa sant la ma yàlla gi dañ siy gën a ànd ak tawféex ak taysiir waaw. waaw fi mu toll nii mën naa ne Touba mu ngi xat lool nit ñaa ngi commencé bàyyeekoo fu ne di ñëw muy bitim réew fépp foo xam ne rek nit nekk na fa si àdduna rek yaa ngi dugg si si Touba dëkk bi nag commencé naa xat lool waaye nag dëkk bi lu mu xat xat xat sëñ Touba daa yaataloon ba mu yaatu tey ba suñ borom fayee ko lii waaye nag ñun ñi fi nekk rek. nañ yaatal bu baax a baax a baax ba ku ñëw rek mën a gis sa bopp si sëñ Touba bi nga xam ne moom moo woote yoon wi